maa ngi nuyu tur sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha di nuyu bokki taalibe yi nga xam ne ñoo la bokk liggéey bi bokk taalibe bi fi nekk yoo xam ne ñoo gàddaay fekk sëñ Tuubaa bàyyi seen gént maam yi seen gént bàyyi ñëw fii nag dikk fi am fi am jafe-jafe yu métti métti mooy ndox mi dana génn seen kër ndax fuñ dëkk xam naa ne moo fa ndox mu bare lu ma ñaar téeméer kër génn nañ fa te amu fenn fuñ jëm kër gu ne ñaar téeméer kër boo xaymaa kër gu ne génne nit ñaar ñaar fukki junni daanaka dañuy génn boo xoolee kër gu génne fukki nit rek ñaar téeméer kër loolu da ko jékki daanaka ci loolu lañ tàmbali liggéey bi woote ko am benn benn bokk taalibe bi ñu ñëw kon may wooyoo ñëpp ku ñëwutoon na nga ñëw ku ku mënta ñëw ci te am loo jàpp dañu ñëw nga ñëw nga xam ne daal mbokk taalibe yi nekk ci ndox mi fi nekk te kenn ku ne bu ko xoolee ndox mi rek nañ fexe ba fii dugg ci béy ba sëñ Tuubaa waxoon bi yetaama dawaaman an si bi aban ku lexin yàlla da nga fàttaloo jili bi seen day seen baay daa bég naa doon seen bég ti boo xam bokk taalibe yi nekk ci ndox mi nekk jafe-jafe metti nañ fexe bu ndikkee fii ngeen góorgóor fii mel ab cité boo xam ne euh, cité Sëriñ Tuubaa bees lay doon boo xam ne ko defal <laughs> nit ñi nekk kon la laay wax rek kon maa ngi woo góor di woo jigéen di woo mag di woo ndaw waaye rawatina njaboot Sëriñ Tuubaa gi ñu xett leen sama bokk yi yaa àll bari yaa àll bari hujjul bari bal saqaay sëñ bi woote woon ak géej gi wóor géej gi waaye ñun ñi nga xam ne lu ñu am Sëriñ Tuubaa tax ñun ñi nga xam ne Sëriñ Tuubaa daf ñoo boole ci boppam te boole gi ci boppam du suñu liggéey ndey du suñu du suñu pexe jaayut ndax bu gi mm-hmm. ñun ñëpp Sëriñ Tuubaa tax ñu boole ci boppam ba suñu yaay ñu leen yónni suñu yaay toj suñu toj kaw donc yi nga xam ne amuñu seen amuñu amuñu seen bopp sëñ Tuubaa jàpp seen maam ci toolu xare sëñ Tuubaa kaw bu nekk ci ay jafe ñu fàttali nag mu doon te ëllëg lañ jëm adduna si képp nga am jafe-jafe loolu dañ sànni suñu bopp kon maa ngi woo sama yi bokk sëñ kon sama bopp laay tàmbalee nañ futtiku dëggee sëñ Tuubaa ci jaamu yàlla jaamu yàlla yi ku yàlla na dimbale koo xam ne sëñ Tuubaa mi fees na soxal wala yaa ngi yëg sëñ Tuubaa rek na ngeen bokk Tuubaa ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kullu man xadamani aw saara fa najjihi wagfir lahu aw saara wa kullu man aabani aw maala ilayya ak sama application wave mën naa ci jaarale sama addiya mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application wave dem ci menu paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu indil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a ci Touba ca kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci konti Touba ca kanam jërëjëf sëriñ Touba.